Cheikh Béthio kay na manti ko buur ba kii la Cheikh Béthio yow borom na mel kay ma wan la Cheikh Béthio kay na manti ko buur ba kii la Cheikh Béthio Serigne Touba mi noon min na laay ila la ay na muritu laay yasal na Cheikh Béthio Cheikh Béthio fa jëm min na yoon wi Cheikh Béthio man na gëm sax bii nu yóbbu

balaa booba maa ngi fay nuyu suñu tubaab suñu fi wér di ñaanal te di ko siyaar di ñaan mu yàgg fi wér moom la ko di nuyu ñi fi teew ñëpp bu am solo xutbaam bu solo bu ñu dafa te rek ñu war a xam ni rek danoo war a delluwaat ci ak njaam ndax loolu rek mooy mooy soñ ak njaam nag ñu ko dee wax mooy ak tàmbali tàmbalee ci sëriñ bi yem ci sëriñ moom day dimbali nañu teg nañu ci yoon won nañu nargan nañu ci ak tàmbali ba xam naa ne loolu de képp koo xam ne jóg nga seen sa sa sa yoon woon nga tege na la yomb ndax wan nañu yoon bi te teg nañu ci kon nag maa ngi maa sant bu baax a baax te loolu lépp lépp ci ci ci ci ci ragal ko ci yaakaar ko ci ci tàmbale moom ci loolu rek moo ñuy jariñ sunu sànni ba sëriñ Saliou doon na ko wax te moom day loo ko jege mu jege ba ñu ko adduna la mu ngay dem dëddu na te dax daw mënu ko kon nag loolu dëkkoo dañuy xam xam li ñuy jar mooy nañ ci tànn sàmm ko te fas yéene cay ne ci laa woote dax li xam li ñu ko ci def war nañoo ko may war nañ koo sant war na ko wéetal war na noo góorgóorlu ci lépp loo xam ne bàyyi dëkk waay bokki taalibe suñu ngor de war nañ ko sàmm suñu digal moom ndax moom de woote woon lu dul yoonu yàlla yoonu yàlla nag weesu yoonu Sëriñ Tuubaa bi mooy Sëriñ Sàmm ci ci laa woo képp koo war na noo ca loola ñu ngi lay tàllal loxo loxo fas yéene wunoo woote lenn lu dul fa mu tawoon mooy ci ci moom day yem ci kon nag yëf ci ne rek la war ci moom moom moom da ngay cay war rek la muy ne waaye ko moom mënul ndax la la ak fi mu teg ak fa mu yóbbu ak kaaraangeem ci ñun waaw loolu buñ ko seetee war nañoo gën a góorgóorlu ci doxin nan ci nan ci defaat suñu pas-pas yëpp def ci suñu yitte yëpp te xam ni mooy tey mooy démb te mooy bu ëllëg maa ngi leen di sant te di leen gërëm ñu waajal na waaw waaw waaw de aw na ñoo am jenn yitte juddul màggal nii 17 avril bi mel nga ko raw raw na ko màggal ndax loolu la mooy yéenee sëriñ bi looloo doonoon bëgg kon nag bis lu ci tey nanu nanu xam ni màggal gi ci suñu kanam te war nañ cee nekk waaw waaw moom moom laa leen di ñaanal yàlla na ko fekkee te tal ko te def ci lu foo xasuñu jox jox ci barkeb sëriñ Sass jaa ngeen jëf maa ngi leen di sant bu baax di wax sama mbég ci nii ngeen teew ci jullikaay bi waaw nanuy nanuy nanuy fonk nanuy fonk day ndigal moom lépp loo xam ne digal na lu ko rek suñu njaay barab bii mu sos sos ñu fi jullee te moom képp ko fi daan taxaw di ko di ko digle bu ñu jàppee ni moom day lu ko fiy jóg war na lu ñu ko fonk fonk lu ñu ko fonkoon yokk nii nag ngeen def bég na ci maa ngi leen di sant te di leen gërëm yaa ngi jëf barkeb sëriñ sax na ko ñëpp sax yàgg lool sant nga yàlla ñam la yor te lu ko soob def Cheikh Béthio nangu leen dogal yi Mbàkke moom Cheikh Béthio yeewu leen balaare ca weesoo kuy xalaat nde dootal gëmel Cheikh Béthio bay nelaw ëllëg jar na seen tu Cheikh Béthio soo bañoon Cheikh Béthio di nga fa waar kilifa koy ndargaajo Cheikh Béthio Sëriñ Xaadim Cuun maa ko naw sa xam-xam salgal tàppe ak yërmandem jo Cheikh Béthio Sëriñ Xaadim boo seg fitam wa Cheikh Béthio dum Sëriñ Saaliw mi borom bi Cheikh Béthio xol ba dara feet ki lewet na yal na ak wéram sax ki dal na Cheikh Béthio sal siwis yaram bi desiw na Cheikh Béthio Cheikh bi mastawa te muute

సంతకం సంతుకో seen baay ba kenn that I know.